asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi foo waay mën a nekk ci àdduna bi yëpp nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci kàddu yi sant yàlla sunu borom julli ci yenant bi alayhi salaatu wasalaam yeesalaat sunu njébbal sunu jaayante ci yaakaar yi jaam ñi mawlaana cheikhul xadim di ñaanal bu baax cheikh muhammadul muntaxa bachir mi toogee jataayam mate ko sëkk yàlla na ko yàlla sàmm yàggal ko lool ci sunu kanam ba naal yi mu naal yëpp mu àggale ko fu féete kaw njortam ànd ko taalibe yëpp di jaar ci moom nag ci bis bu rëy bi nga xam ne jox nañu ko muy bis boo xam ni ndigal la te murit ndigal rek lay jëfee su bëggee ñu nangul ko la muy yëngu lépp mun taxaa yàlla na fi yàgg te jël ndigal lu rëy jaarale ko ci li nga xam ni sëriñ Tuubaa xaadimu rasuul waxoon na ni ci sama yaram lay dagg di jox taalibe yi mooy xasaayidam yi jaarale ko ci mbindum Serigne Touba Xaadim Rasoul mi nga xam ni sëriñ bi suy bind nee na maa ngi koy tuxale ca lawhul mahfuz fa sunu borom di bind ndogal yi fa laay tuxale sama mbind te képp ko xam dara ci yàlla du ko werante kitaabati min lawhi rabbi tunqalu laa yamtari fiha nabiun yaqilu kon nag jox nañu sas wu rëy waaye dinañ ko song daan ko ànd kook moom muy lan bisub xasida bëgg rek nu dajaloo ñun ñëpp delloo njukkal sëñ Tuuba jàng xasaayidam yi ñaan ci mi jàmm ñaan ci sunu gox jàmm ñaan ci dëkk bii jàmm ñaan mbas mi jóge fi mu jaarale ko nag ci rakkam xaritam soppeem jàmbaar ji nga xam ni dafa xëy rek nekk ci xasaa yi di nekkul lu mu gonte sëriñ Amsatu Mbàkke ibnu sëriñ Chouaïbou mu jox ko ci ndigal képp ku ko jàppale ci xasaa yi di xam nga ni defal nga ko lu mu bëgg sëñ Amsa xasida rek mooy liggéeyam jaarale ko ci porte parole am bi rakkam ji nga xam ni xam-xam rek ak mbaax ak yar ak teggin Cheikh Basirou Abdoul Khadr mi nga xam ni boo ba léegi noppaluwul jaarale ko ci kan jëwrinu isbu tarqiya ndax xam ngeen lu ñu tax sos ci yoonu murit wala ñu koy taxawal isbu tarqiya da cee am taxawaay bu rëy ngir seen organisation ngir seen njàmbaar ngir seen farlu ngir seen bëgg sëñ Tuubaa ci njiital sëriñ Yuusu Jóob jëwrin ak mbokk taaliba yépp ci isbu tarqiya ñu waajale ko bis bi nga xam ni incha allah dina tolloog àllarba dëppoo ak le 11 août incha allah war a tolloog benn fan wala ñaareel bi fan ci weer wi nga xam mooy mu muharram di weeru tamxarit mu woon ak taalibe yëpp jullit yëpp mbokk yëpp fii ci tuubaa ñu ànd santale ko yàlla jaarale ko ci xasaayit yi Serigne Touba yi ñaan jàmm ci réew mi ñaanal yoon wi ñaanal ko mu yàgg fi te kon bis baa ngoog bu ko kenn wuute woo nañu réew mi woo nañu bitim réew ku dégg sama kàddu daal mooy sab woote foo mën a nekk ñëwal ci bis boobu nga xam ni ñu ngi koy séentu incha allah war koo ànd ak sunu jàmbaar gi sëñ Muntaxa yàlla na fi yàggate ànd ak wér kon daal mercredi onze août lay doon tolloo ak benn fan wala ñaareel bi fan ci tamxarit muy weeru muharram incha allah ci Touba bisub xasaayit yaa ngoog ku ci am wàccuwaay daal wuy sil sëñ Muntaxa ci woote bi jaarale ko ci jàmbaaram ji sëñ Amzatu Mbàkke son yi bu waaye jaar ko ci Cheikh Basirou Abdoul Khader woo nag site yëpp woo communicateur yëpp woo taalibe yëpp woo mbokk yëpp bis baa ngoog murit ndigal ku jëfi ndigal raw